yaayam a nga Amérique Magazine mais a big game, they could caam lañ koy woo déggal foofu noonu la xarit di mel ak aji jóob saala bi ke njaay gàmbeen ndey bu la teralee sagal ko am na ay doom yu baax yoo xam ni ginnaaw ba seeni nday teralee danoo màgg sagal leen ak fu ngeen mënti nekk ci àddina bànneexu leen ci King FM ak El Hadj Baye ni ngeen ko bëggee laa koy defee fii ba 14h ci première rajo digitale du Sénégal ñu àggali ak beneen ndaanaan. yàgg naa dégg ñu naan mbëggeel ci xol amul prix dégg naa ñu naan kenn du ko waxaale. yàgg naa dégg ñu naan mooy capitaine boroom. laaw la cat fu la fekk maaj loola ku ko dundul mënoo ko xam biisu ñaan rakki fi fi ñaan madame Mbaye maa la nuyoo déggal fi bisu maam Cheikh Mbaye la grande royale xanaa bëgg nga lu na mel di jëriñ laaj walaay ni xam nga ni wóor nga koy dégg te dundoo ko doo ko xam déedéet Matar si la xari Jóob Kamal sama rakk ji lu namel di jëriñ yàq yaay Baba Diagne madame le maire Thiaba Diagne lu nameel di jëriñ jalma jalma ci réew mi taalati yokk ku ci jëlit yaay janga bu jër junni gàddu sumaam réew laa yàndal li ci bànneex ci dëgg ak dégloog alaaji papa seex yàq yaay baaba jaañ yaayu buuba sano lu na mel di jëriñ mbokk ndeyam ayta lu na mel di jëriñ diggante yàgg a baax ajatu rama jaw lu na mel di jëriñ saayaande xamee samaam fifi julde rakki biraanu yaayam biisu julde rakki biraan biraan yoro maam seex julde ibra biraan biraan yoro biraan yoro biraan yoro yoro bu bu ma jege woon la përi cengalaat cee tegale bu dem ma mbeng mboor kumba abdu sëriñ moodu bokk ndayam kals lu nameel di jëriñ wallaay ni mbëggeel neex na wallaay ni mbëggeel wóor na ko dee dégg nag du noo doo ko xam wax ko ko looy xaar looy xaar looy xaar looy xaar xaari Fatima looy xaar looy xaar wax ko ko bul xaar bul xaar wax ko ko bul xaar looy xaar bu kenn xaar wax ko ko bu kenn xaar looy xaar ay bu kenn xaar looy xaar Yacine looy xaar eh, wax ko ko bu kenn xaar looy xaar Yacine looy xaar wax ko ko bu kenn xaar wax ko ko bu kenn xaar looy xaar Yacine looy xaar ay looy xaar bu kenn xaar <laughs> la bëgg nga bëgg ko ko ko looy xaar soit day d'accord rek wala mu ne la déet nga waxu sa dox te yoxusu papa caane faye ko waxoon kon yaasin kuy wax ko ko looy xaar looy xaar jarul xaar mel nga bañ sa géer gi biisu la tudd waaye nga rey maag biisu biisu biisu maam Cheikh Mbay rakk fi fi ñaan biisu saa yande ñu ngi lay bëggee bu baax wayu neex la nag euh, wayu sedd xol sedd na xol dugg na xol ak euh, ajot Fatou Géwél euh, mi nga xamee ni moom it ci programme bi lay bokk rek xam naa xeetu baax baax yi nga xamee ni mooy dëggal ni maa leen di yóbbu ngéwél central dëggal ni ay nopp gar mi ngeen yor namoon ngeen ko moo tax nag ma fas yéene delloo buum ca mboy ga sama taaw bee moo wutu woon fan yële yëpp Samba San Samb Maysa Mbaj Ngombe kooku lima ma séq ak moom sax du lu talmini on ab woyu alpulaar la boo xamee ni bu ngeen seenee euh, d'habitude ci télé yi bu dee xamu leen euh, dañuy def sàppaade euh, defi gamb gamb mooy yooyu ñuy tëggandoo tëggandoo nu ci suuf mel ni ñuy mel ni ñuy ñuy cuub voilà donc notre tradition gaoula alpoular la Kumba gaoula def ci lu reuy tay moy bi nga ni la rédaction Booking FM tan dafa nara jall en boucle euh, ci fréquence lé di 99.4 Dior Mbodj ak Serigne chaliou ñu ngi leen di gërëm bu baax doon présenté Midi Culture on les retrouve tout à l'heure xam nga ni waxtu à la demi dañ leen di proposer une page info pour ngeen mën di xam les xew ci réew mi ak tout en écoutant de la musique donc c'est une autre façon de faire de la radio euh, ñu ciy àndandoo ak ci 99.4 première radio digitale programme alors programme yi beaucoup na ci euh, Mbène Diatta Seck mi nga ni euh, théâtre national Daniel Sorano le 21 décembre Taïtu ci suba rek C'est télévision Futur Média Ben Hamna naa dina fi ñëw yendu ak ñun ñu waxtaan projet mais surtout date boobu la nga xamee ni nas na euh, pour le 21 euh, le 21 décembre et puis euh, demain vendredi Hassan Ndiaye dina ñëw yendu ci rajo bi xam ngeen ni à Ndiaye album ngir célébrer ses 20 ans de carrière Bon appétit. itam mu préparer tournée européenne dina dem Belgique France euh, pour des spectacle bu dellu see nag euh, dina de guddeem fi euh, Grand Théâtre loolu itam événement King FM le. ñu ngi jëm le 28 décembre Grand Théâtre nana andono ak ki Modi, Carloudi, programme yooyu yëpp ko détaillé ci King FM première radio digitale du Sénégal en attendant magali ak di bégalee fii ba kat. ñu waali ju feey xare ba sa coor coor ew ku fa yóbbu buum darka sa yeew hmm. way daan nga leen daaw daan dootul miim gaw la boo daana te war leen mën a duma ay sambirim de lay wam sambirim jaalama ew wuy jaalama jël wuy jaal sa yaay mayee bu la meree damoo hmm. la bu sa baay mayee bu meree damoo la loolu yaa ko moom gaawloo gaawloo gaawloo ki ngeen di bëgg a baax na sax waaye duma teral naa ñàkk ki ñaan rek te te ko yem Penda Yéeri baayu Philippe ak Zeyna mi teel a ne leen ki la teete ba nga tollu fi nga tollu gisal bul ko defantoo moo la wan yoon wee ki la ba nga tollu fi nga tollu ci bul ko moo la wan yoon wee ki la teete wan la yoon boo man de fi may xale la tam woon muy ko ci ki la teete ba nga mën boo ko mënee gërëm ko miiraam di la bokk bu amee oto yóbbaale la dëggit Boubacar Ndergan yaa ma wan yoon wee ki teral moo la tër ki teete ba ñëpp yëg ko gërëm ko bañ dégg maan mooy baay ba ndey soxna bu mooy yaay ja ñàkkal ki ñaan nee leen yaa ma wan yoon wee nee na ma baax yëpp nee na ma def ak li ma la defal kay seetaan télé doo daanu mooy Abdalaye Daaru Mbaar ak kan Daaru Mbaar ak Galil ma jooram ma saara daara ma jama way ko subu paate demba paate iliman duri baaya cey loolu mooy yéen woo ko woowaat ko dal na sunu xel sa yaay a liggéey lii nay ci la xale ku ngeen bëgg xale ku ngeen bëgg ku leen di naxtaan xale yi ku leen bëgg ba dara doonu lee dara yëpp daw ma mese ngeen dégg demal yow laa gisoon ñoom ma yoon lee abi nee na ma baax na ngoone nee ma baax na dal na sunu xel sa yaay a liggéey lii nay ci la baax nga baayu papa fili

Eh, way ko xaritam Boubacar Pende Yéeri àndandoog Aïda Samb Gawlo eh, sot sotoo ko daal dañoo jël woy wi rek saax saaxi ko Caroline Diop lu na di jëriñ Madiaka Sawa Ndiaye yaayu Anta Samba Suna Coro Numbaan lu na di jëriñ jagaak laanu ajot Ndeye Marie Diallo ma nga Sangomar xaacul foofu fu maamam jëndee nga ni eh. ak kan dee Jóob Lambaay Fabe Jóob Lambaay Ibu Jóob Njaay Lambaay nijaayu Awa Fall càmmiñal Ramses. Nube job lambay la Fabe job lambay ak Ñaaw job lambay naru ajaarama Géy nday mari lanu woy mi nga bokkal maam waaye naa ci wax far muy yow man ki kan doom def koy woy doom ju bëgg yaayam ko koy kan ajarat Ndeye Marie Diallo ki bëgg yaayam te fonki bokkam Ndeye Marie Diallo kor maire de Dakar ajot fattaay la yaayam tuddu ajarat fattine tay sa yaay fattaay sambandar. Ndar Samba Ndar yi ba ku jur Samba Ndar ma leen ku yaa iya. awa seex awa seex ndooy agalil Fatim ne taxaw ñang ma kura fa bint ndongo mi ci bango yi bari ju fa yaayam ku jur bari juuf ngone ba yaayam ñu ngoy ma yuje la sama ma yuje samba ndar la bay ba tuddu samba ndar sama samba ndar alar ba jaay ba mari gata ko jur mari gata ya amadu mi ci xay amadu mi ci xay te ngeen ma bay oy ah! ak kan maa faam. ak maari maa la ko ko jur. mariyato yaayam. eme isa yaay. awale isa yaay. baayam ba. Seydou Diallo sa baay. moo daa def lan. moo daan daloo doxandéem yi ci gees. moo daan dimbali néew di doon.

Sabe Diop Lambaye la ibu Sabe Diop Lambaye Ñaaw Diop Lambaye la jagaag la càmmiñal Ramses ndumeeg Fabe yàgg yàgg gën ci bëri valeur bakalamin mi ci jàkka ja naaru ajaratu Rama Gueye semi jëm ci seese jigéen ju baax jooju teel dem man sama numbe Fabe ma des ci biir sàmbaay mbool Fatkine Taay la yaayam tudd mom Ndey Mari say yaay cey loolu Amari Cissé yi baay yaay ak Abdourahmane Gadji Mare jul jiili ak Maam Jaara waaye ku mel ni borom këram Papa Diop ba ñu fal la maire déggal foofu Yacine Pouy ah tubaarkàlla nga war a mel ni kan. nga mel ni Papa taaloon na lampi. taal na lampi. geureumal moko, ko ni gatché nga mom lu mu daan def te de koko diko jur nu mu tuddu nu mu juddoo ma samba la mam ju tuddu ak ka des ma samba mamam ma lan nga ni wala lan alaaji Papa Diop maire de dakaar moom la ndongolo euh, ni woon Papa Diop suñu maire ba est-ce que vous vous rappelez de ça alaaji Papa Diop di ku baax euh, ñu ngi ko ndokkeel soxnaam euh, ajot Ndeye Marie jàlloo lu ñu woy woy wuré wi nga xamee ni yàgg na ma ak moom teg naa ko ci jotaay bu ne Fabe Diop Lambaay waaye nag du ma dégg Lambaay mukk te duma ci bëggal képp kuy doomi Lambaay Lambaay Lambaay yu mag yëpp Eh, Abbas sama xarit la ma nga dëkk bu ñu naan France nee naa ay doomam sax dañoo silwise waaye dëgg-dëgg bu nu xaayee màgg tuuti dina leen solal ay bolok yóbbu leen pàkk làmbaay ñu jaay bant xam nga nag waa làmbaay dañoo yàgg ak jom pàkk yaa ngi ci réew mi bu Pikine ak bu Dakar foo ca dem rek fekk fa doomi làmbaay ñu bëri jom lool dama cee xam nag ku bëri valeur di sama magu bopp eh, di magu ajot soodo buso eh, di bàyyi kumba di sunu xarit bu baax di ibu job nyai grand tons ips nijaayu awa fall mang la ci bégal bu baax yalla sa jamm yag ya dëkk lambay ki ne laam way ne ki ko neex waaye man ma bégal ci kima far pare gu mag mom xam nga ni eh, actionnaire la ci eh, jotaay bile bu ma jógee lambay nak fi lay wacc ka Vert seeti lat njaay bii nga dërgën mi ci ngol ngol mbokk maître Abdoulaye Wade ndikook Maysa Kani duma ndënd yi rëkk mbàngoo ji ma bëggal la ci duma ndënd yi rëkk mbàngoo Njaga Matar Ngone Njaga Matar Ngone demami ci ñaaxe yaay nga ni kokoy kan aw jop ke sœur à l'Assemblée nationale walaay ni sama ndey ji dégg nako mo moo ya ak ablay wad Njaga Matar Ngone Cheikh Ismaïla la bayam tudd Cheikh Ismaïla Jobay sa bay Ibra Jobi Jabaganaay baay kooku dammee lay baayam dammee ni Njaga Matar Ngone

Ngoné Ndiaye Mbeng ku ko jur ku ko jur xari asamaan di loo ko man ak kan ak ku yaayu ndeel meer bi ci fan libu yu benn tëgg lañu am muy bii keneen ko mandiri jaloor mandiri jaloor mandiri fa loko wayal o yendo fo foofa fana mandiri jaloor mandiri asukan lat bige dergen mi ci ngol ngol jay bi ge dergen mi ci ngol ngol oo yendoo foofa laay fanaan asukan jay bi bige dergen mi ci ngol ngol xaacul ci foofu koy woy ku yaayam ku ko jur xari ndiir loo ko woyal demba ndiir man ndiku coro yirim fara wadd njaag la yuxulu bee soogum xeex Ablaye wadde lo bokkal benn maam Mandiri Jaloor ndayam yee foor borom foor yi noonu lañ ko bàkkee wax jàngi borom foor yi kuy yaayam lingeer bi ci jëppal lingeer bi ci jëppal sooda la yaayam tudd sooda isa yaay kuy yaayam isa yaay ku ko jur asu yaay isa yaay ñooñu ku leen jur ñooñu am ni kan la mbokk ndayu Cheikh Mahfouz mi dem Aline mi day jooy Kine Sarr sa waaj mbokk ndayam Kine Sarr sama waaj Ada Tawa Njaay la bokkal waaye bàyyi ma miin naa ko kooku mbane la yaayam tudd ndaanaan bi nun koy woowee mbane la cay Adja Gueye suñu caat yaay Binta Jaata lu maamam def dàq kan lan la fi doonoon doon nga député ci réew ñoom nag ñu ànd ak euh, euh, maître Abdoulaye Wade boobu ba tey euh, ci combat yu am solo ajot Awa Diop fidélité Nafi Diallo fidélité ajot Mame Diarra Fam fidélité maa jël wooy wi rek may leen ko béggal leen ci ñoom ñu àndandoo ak ñun ci 99 point 4 bu ngeen ma toppee nag mën naa ko fii jàpp yéen a ngi dégg léegi ma naan ajaratu Assane géey lay woy euh, xam naa ngeen foog ni Assane turu góor la donc normalement ab Assane ñu ko wax ajaratu Assane mais en fait euh, am na ay jigéen yu yore turu góor y en a tellement donc Assane euh, ajaratu Assane Mariama Assane Gueye ma nga dëkk buñ naan Atlanta yàgg a baax moom bokk na ci jigéen ñi njëkk tukki. Euh, tey boo demee ba euh, fekk gouverneur ak kilifa Amérique euh, yi nekk Atlanta dañ ko jox bopp parce que dafa yàgg a nekk jàmbaar moi je pense qu'elle fait partie des premières africaines yu ubbi salon foofu Atlanta am na reportage bu mag boo xam ne defoon naa ko ci moom bi ma demee Atlanta waaye bi ma ñibbisee band baa lakk <laughs> teral dama kat Assane jox na ma lu ne waaye bande balak lakk <laughs> foo koy waxee mais Assane ku baax ñu ngi ko ziar bu baax ki ko woy nag dib ndaanaan yaayu maam xujja maami Fatou Guewel Fatou Guewel ci boppam euh, moo ko woyoon euh, moom tamit euh, mu ngi préparé ay ay guddi yu mag moom ajoot Fatou Guewel dina ko tëgg en attendant muy delluwaat Grand Théâtre d'ici 2020 on va retrouver ki ma waxal léegi di Kumba Gawlo borom baatu wurus bi am na événement yu bëri yoo xamante ni euh, ci fin d'année bi daf ci bëgg a bégal sénégalais yi elle sera avec nous euh, ci télévision Futur Média xam naa fii léegi semaine prochaine barki Dembo Ndiaye tëgg na spectacle bu silwisé Coumba Gawlo moo silwisé nag moo am classe moo am classe Sangoné Birame Jigéen yaa am classe Mabousso Absa Ndiaye yaa am classe Ñoxor Absa Ndiaye yaa am classe Corokuli Absa Ndiaye yaa am classe Birama Daly Absa Ndiaye yaa sa baay ndaanaan ba. alaaj lay bamba mi nga way saal ba bu mujj bi tekk gi mu dem rek waaye gëm naa ne bu dellu siwaatoon sekk doo defaraat sa toogaay sàngoo ne birim jigéen ajot fat say mbaay la sa yaay tudd jigéen ju baax jooju nga xam ne moo njëkk diva avant nga koy dégg waaye it bi nga ko déggee yàqoo ci dara lii nga way jagleel ko borom ndaam nag ab woy la woo xamee dañ la koo jox waaye daf laa feeñu man lii laa gëm la bu kenn dootul bu kenn dootul miim ci neex-neex faafa gay mi nga xam ne dara safu ko sax joge jóge Kaolack wàcc Ndakaaru miin fi lool ba xaw a doy waar moom sax d'accord nag Kumba Gawlo ci woy wii nga xamee ni euh, bàkk na ko sunu sëriñ xam nga lii mu ko waxal. un court instant.

jàpp na ne xeetu sabotage la ba tax mu ne ñëpp ñi nga xam ne ay daan war na gàlloo ci seen ndodd daanu leen ko teg ni ko yoon waxe ñi nga xam ne nag ñoom ñoo war a yore liaison ferroviaire maanaam li nga xam ne moom mooy train Dakar Bamako waxtaan yaa nga ca ngir ñu mën koo jëmmalaat jëwriñ juñ dénk wàllum infrastructure di maître Oumar xam xamle na ne démb ginnaaw ba muy janoo ak ñi nga xam ne ñoo di député yi ca pencum ndaw réew ma ne banque mondiale noppi na ngir daal di dugal ay koppar ci ci googe euh, réseau euh, ferroviaire ca Mauritanie euh, juróom fukk ak juróom-ñetti doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan ginnaaw ba gaal ba ñu newoon daal di suux ca waaxu Mauritanie ñoom nag ñu ngi bàyyeekoo woon ca Gambie nekkoon du toll ci téeméer ak juróom fukk doon jubali ca réew tugal yi juróom-ñett fukk ak juróom ci ñoom mujjee nañu leen wallu bu ñu sukkandiku ci xibaar yi. wàllum tàggat yaram directeur technique national bu football ak naataangoom bu basketball euh, daañu leen dàq fii ak ay fan yu néew euh, quotidien quotidien bii di record di yëngatu ci wàllum tàggat yaram moo joxe xibaar bi Mayacine Mar nag euh, juróomi at a ngi nii mu jiite directeur direction technique nationale bu football Maguette Diop moom it naka noon it daanu ko jëlee ci bopp direction technique nationale bu basketball moom sax ñu ne ku moyul Moustapha Gaye mi tàggat gaynde yu góor yu basket yi moo ki ko nar wuutu ñu jeexalee tënkum xibaar yi ak wàllu musique Kumba Gawlo Seck ak wayam wi di siyo